même nan ko annoncé ngeen ko coupe du Sénégal en quart de finale senior Jaraaf ak Casa doon Petite Côte ligue FC jamono d'Arc ak Les Férus ak Dial Diop ñu ci nga coupe du euh, Sénégal tamit bi jëm jamono ci réseaux sociaux yi moy trophée yi nga xam nak présenté nañ ko né moy trophée yi nga xam né moy euh, li ñu équipe nationale plutôt li fédération sénégalaise créée pour li nga xam compétition yi ko du jox sama sociaux ¿no? mon ni ni de retour en équipe nationale a donc au soccer loolu la Diamondi, l'ancien sélectionneur du Sénégal démon euh, Maroc dellu hein, donc mongo euh, récemment le Finham finalement donc ci Sénégal galassila euh, donc Momit, il est plébiscité pendant ce temps n'a que donc Warren zaire Emery ak Barcola Bradley ñoom dans le lieu des petits Jeux olympiques yi donc aussi sont privés de ça Paris Bayoulen, mais aussi dañuy waajal compétition européenne qui lui mène. Pendant ça aussi, Gomez, euh, le défenseur de euh, Liverpool, ancien coéquipier de Sadio Mané, actuellement ñu ngi koy tudd du côté de euh, l'Arabie Saoudite ah ne foofu la war a daal di am ay propositions yu bëri daal yoo xam ne na fa jëm ci moom ki nga xam ne donc Gomez pendant ce temps les deux donc joueurs muy Emerson Royal ak ki nga xam ne donc également Richarlison ñoom ñaar ñëpp daal fi mu ne nii ay instance de départ la ñu nekk te Tottenham bu gisee proposition dana di bàyyi daal ñu daal dem. Emerson Royal, ancien joueur du Barça, et aussi Richardson, ancien joueur de Everton. Pendant ce temps, qui est donc Nicolo Barella, gannaaw bi nga xam Lautaro Martinez Mom nee nañ joxe accord pour prolonger Barella également Mom une bokk ci joueurs yoo xam dañuy prolonger avec le club italien de l'Inter de Milan Qui nga xam ne nag mooy José Mourinho Les lañ leen wax après ci ba sportif yi yi <laughs> nan la annoncé gars yi du côté de Fenerbahçe un entraîneur boo xam ah, toujours charismatique am gis-gisam am objectif am.

le moom na que dit pour yor beneen équipe ki di également Luis Enrique meilleur Paris Saint-Germain ji que le parisien nee en finale ne Paris Saint-Germain il ngi propose proposer une prolongation de contrat parce que jàpp nañ ne moom fa indi doy na seen créer ak un projet à long terme dans le club parisien d'Ali euh, la dernière danse pour deux cadres du Real Madrid muy Luka Modric ak Toni euh, Kroos hein donc nous euh, ñaa nga xam ne finale Ligue des Champions mais peut-être que c'est une dernière finale euh, Ligue des Champions donc des adieux qui seront très très euh, très émouvants notamment pour King nga xam ne nag donc Kroos Modric moom mais aussi di fàttali rek Real la dernière fois bu mu perte finale Ligue des Champions c'était en 1981 et c'était contre Liverpool depuis boobu joué nañu huit finales Ligue des Champions perte ñu si dara ndax nee naa leen jox information mais aussi des leen jox yéen nga xam ay statistiques histoire pendant ce temps King nga xam ne qui dit donc di Carlo chose team team a confirmé confirme qui dit donc donc Thibaut Courtois moy golu final Ligue des champions bi lu ne ci banque bi lay Courtois qui avait écœuré l'attaque de Liverpool bu ñoom Sadio Mané la dernière fois que ñu jouons une finale qui nak di Mbappé mon fi ak lundi wala mardi lañ ko wara officialiser du côté donc de la Casablanca dañ leen jox détails qui Mbappé mi nga xam donc il sera attendu ce n'est plus un secret il va aller signer du côté du club de la Casablanca mon lit le posté alors qu'il est en route pour officialiser bien évidemment sa venue qu'est-ce que vous ngi nii mon musique above the clouds last break before the next challenge gis ngeen ah ma ngoog dernière ah, dernier repos avant challenge bi nga xam ne mu koy xaar muy jëm ci Real Madrid gis nga ko dans l' avion bi koy yóbbu foofu noonu du côté du Real Madrid Kylian Mbappé pour officialiser fii lundi donc ça venu gars yi li moo nekkoon information yi bëggoon jox toujours plaisir de vous servir di jéegul nag gis ngeen dañoo nekk si milieu bu fermé mais teewul dañ leen jox information on se donne rendez-vous tout de suite sur iSportif jaagin.